صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass moomu fi yebal ma teewal ko fi teewal fi sama rakk yëpp loolu daanaka amul explication ndax wolere démb la woon ndax sunu maam alxaaji abdallahi ñes jur sama baye mu taw ko deg rek mu ñes rek baye nek rek sama baye moko mak mu muy juddu 1845 mom nak bok ma mor jaara magi mak borom sam, ñoo wëllërante won ci ay ci jolof di jang di ay xalé ñu ne ñun ñaar ku ci njëkk a génn àdduna sa moroom na taxaw ci sa bàmmeel jàngal la suratu yasin xol yi ndaw rek yàlla def maam moor jaara njëkk a nelaw ñun ay jolof-jolof lañ ay immigré kawlax lañ kawlax dëkkuñ kawlax ay immigré lañ ba maam moor jaara njëkk a nelaw <clears throat> sama baay sama maam num mu ko yëgee xaw ko daldi di oo sama baay ne ko mammat moor jaara dañoo wóllërante woon ba ñuy ay gone ca jolof ne ku njëkk a génn àdduna na nga taxaw sa bàmmeel jàngal la suurtu yaasin te man mënatumaa dem ndax mag laa waaye nit ki na nga dem fu doomam dem dem na fa loolu mooy première ñëw bi yónni sama baay sama baay ñëw sëñ Maamoor Mbàkke moomu nag nee na at ma maam Maamoor Jaara nelawee ci la way juróom gane àdduna vingt ou vingt et mu ñëw jaale si sëñ Tuuba ba ko jaale see nee am nañ fa ñetti fan néeg biñ leen dalaloon ak néegu euh, sëñ Tuuba Cheikhul Khadim ñoo janoo bu saqatee nga dégg ko waaye nee na ñoom gisuñ ñam dugg fa gisuñ it ndox dugg ku doonul moom nag boo sante sàmm bu bu dañ fekk nga faatu nee na mujj gi Cheikh Ibra Fall daal di ñëw raam ñëw indi këll def ci ñam indi beneen def ci ndox ba pare ñëw ne leen sëriñ bi nee na ngeen ñëw mu nangu seen jaal balaa lëf kee lëf ki léegi mu yëngatu lëf ki mooy otoraay bi wala saxaar gi sëñ Touba mi ci résidence surveillée ci beneen programme la tubaab yi ne bokkatu ci kii dañ ko isole nee ñu dem ñu nangu njaal mu daal di oo ñaari doomam sama bàyyi ne moom laa ko xamal boobu sëñ Modou Moustapha ak sëñ Mouhamadul Fadal mu ñëw sëñ Modou Moustapha nuyu sama bàyyi sëñ Fallou jël loxoom sëñ sëñ sëñ Touba ne ko teg ci mu teg ci muy ñetti loxo dégg nga de sëñ tubaa jël beneen loxoom ne ñeenteel leen tey gisam ne naa na ngeen ànd tey ak ëllëg na ngeen ànd tey ak ëllëg sëñ loolu mooy yoonam mooy yoon wam njëkkee ñëw jaale si vingt euh, maam alaaji Abdoulaye nelaw mooy gaañu mook Cheikhul Haaji Malick semaine lañu rawante talaatay Tiwaawoon àllarbay ñeseen bakkan bu doon lam kon borom wekki ko xool image boobu ci olof rek ni mu rafetee pour waxal jamono ji ni meloon léegi bi bi maam gaañu sëñ Touba yebal une délégation dix personnes Serigne Mbacke Bousso moo ko jiite woon ba mu ñëwee jaale Tiwaawoon jógee fa ñëw leew nañu seen fekk fa sama baay jaale ko foofa nag la sukkee dal di bind benn xasida jooy eh, Alaaji Abdoulaye jooy Cheikhul Haaji Malick la ca wax ne shamsun wa shamsun ama shamsin xaabata fa bakal wara li takazufi mu ne ñaari jant yi sonañ ci atum jant mu am éclipse de soleil c'est-à-dire que da ngay da ngay diggante bi kon noonu la meloon maamalaaji génn àdduna 22 sëñ Touba continuer chaque année mu jël teraanga ju bëri jox ko Serigne Mbacke Bousso ak ñamuy àndat ñu ñëw jox ko sama baay sama mag bi ma ko nettali alaaji Omar Niass dafay am léegi nee na ba mu ñëwee sëñ Mbàkke Buso mu ne ko yóbbu ko ca baayam muy maam maam alaaji Abdoulaye maam mu mu ziyaara ko nuyu ko nee na sëñ Mbàkke Buso dem dal suuratu yaasin wal quraanil karim di tari ba àgg ci fi alquran di tëkkoo wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun alam ahdi ilaykum ya bani adama allah taabudu cheytan innahu lakum aduwwun rongañ yi sotteekoo nee na ba pare mu dellu si sama baay oo mënta wax mu toog fa 30 minutes moom Serigne Mbacke Bousso mënta wax sama baay ne est-ce que Cheikhul Khadim mbubbam ragal yàlla mi mi mu sol solol na ko staafam yëpp moo tax man gëwuma baax baaxal laa gëm waaw gawuma baax ma maanaam mbaax goo xam ne dafa yem ci yow boo gisee sëñ Tuubaa ak ak yeneen sëriñ si ñi leen jege yëpp dafa am da dañ leen defar nit ki dafay baax boo je boo nekkee ko am da ngaa war a am man loolu laa gëm mooy suma raisonnement ma ñëw ci sëñ Tuubaa nag di ma ñëw ci wayam li tax ma yéem ko lool mooy condition yu précaire yi don doon dund surtout fële Gabon warutoon a am sax war warutoon am sax inspiration mais woyam yi woyam yi mom seigne touba woyam yi fële ca Gabon mo gëna rafet yow yow mu dem ba sali ci gannaaw mbour dew fa dara nak dama fay duggal ay ay nit xalwa waaw nga tok ba jant bi so amo souci amo am compte banque bu dun amo nangam nga tok jant bi so vers 6h30 demi nga téye sa xalimbe di woy ci arabe wala français sëñ Touba waaye la muy rafet rafet rafet moom ca situation yu difficulté yi moo la gën a rafet benn benn mi ngi nii ba mu demee bay waaj a mu ne yow yàlla ijaal rujuu'i ila qawmi saadatana allahu akbar wal takfina yawma jamil xalqi niiraana mi ngi ko wax ci jamono joo xam ne ku sant Samb boo na koon doo tudd mu jël ñaari bëtam aj ko ca kaw ne ma man nu mu tuddati dootu xam nan dootu am inspiration ne foofu la ne yow yàlla maa ñaan

yàlla nga def rajo yi sama dellu si saadata muy sama sërite loolu nag suma prime bopp la ñee dañ naan muy sunu pexe déedéet sërite la maanaam maa ngi préparé dem mais lii ma sonnal yàlla boo ma koy récompense jox ko sama nation allahu akbar